sama xarit Serigne Ñilaan nuyu Fatou Dieng Endo ah, ah, sama xarit bi eh, maa ngi lay bëggee bu baax Abdallah tey moo géré Fatou Dieng Fatou Dieng Endo laa non man laa <laughs> ziar bu baax a baax Ablaye ziar également ñi fi jaar ñëpp am mbégte kontaante également comme ni ma ko waxee tasewaat ak yéen ci seen rubrique euh, bi nga xam ne alarba bu jot la ci ànd ak yéen muy école des jeunes mariés tey nag euh, dinañ leen indil li nga xam ne moo di laabaan di kontaan bu baax ci ñi nga xam ne depuis ñu ci ngoro jaar ci mariage ba tey ñu ngi ñuy topp euh, dañuy dem régie ànd ak waa régie ñu taataan leen li nga xam ne rek moo di kàddu askan wi naka lañu ñu gisee laabaan bi nga xam ne bareetul ñu koy li nga xam ne ñu ngi koy pratiquer ci Sénégal léegi-léegi ñu ñëwaat li amoon bu jëkk dafa amatul bu jëkk booy takk soxna dañ la naa demal sa kër ndijaay diw wala demal sa kër baay diw wala demal sa kër bàjjen diw léegi nag dox daje rek la da ngay am doom daal ba mu war a sëy daa nga jox borom këram rek wallaahu yax la mu yàlla rek a xam doo xam jànqal doo xam du jànq contrôlé tuñu loolu sax ndax fi ne nii euh, daanaka aaxiru samaan la ñu nekk waaw man daal noonu laa gis situation bi lu critique la daal loolu naqaree fañ nag. xale yi léegi faaleetu ndaw ak par rapport ak ñu njëkk ña mag ñu njëkk ñoom ba nga takk sa jabar sax du am ndaw waaye nag loolu pour mu jóg fi il faut ñu yaraat xale yi tant que yaraatuñ xale yi loolu du fi mos a mais laabaan da nga gis nit bu amee ndaw day tëgg ci koñ bi dëkk bi yëpp génn ñëpp kontaan koñ bi yëpp kontaan ñu koy feete mais léegi dañuy takk nit doo dégg ndënd bu yëngatu doo dégg tam bu yëngatu kon nga xam ne laabaan amatu fi. waa nag am na ñuy baax ba léegi ndax am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi leen di laabaanal am na ñoo xam ne ba léegi di leen gis ñu def lu ne moo soo leen takkee gis si ñoom ndaw. ndax laabaan boo gisee mu wàññeeku xale yi dafa xale yi ña nga fi ñu nekkoon démb ak bërk démb ba tey boo gisee nag mu wàññeeku xale yi kuñ ci takk da nga ànd sa jëkkër dem lune de miel léeg-léeg nga am fa juróomi fan léeg-léeg nga am fa juróom benn fan. boo ñëwee sa entourage ñëpp dinañ xam ne yow mii xale nga ndax la taxoon a jóg boo ko indeewaalee ca fan ko war a indee dinañ xam dinañ ko gis dinañ xam te képp koo xam kii mbokk la wala àndandoo la wala xarit la dinañ ko ko xamal loolu moo tax laabaan xaw a wàññeeku waaye na xale fa ñu nekkoon de démb tey ña nga fa de wax dëgg yàlla seen dox taxu leen yàqu. seen bopp taxu leen a yàqu. jigéen honneur mooy li mu weree su ko xamalee ñeneen te balaa bis bu sëy bi ñëwee dina am kersa loolu na ndey yi ñoo si war a liggéey te defuñu ko dañuy bàyyi di aar seen di mu aar seen doom góor ñi dañuy wuti suñu ñëwee wax seen yaay di leen nëbb di leen defaan te fekk loolu lépp amul loolu tax laabaan amul bu jëkk suñ la mayee jabar fa ngay fanaan meer ak bàjjen yi fa yi toog. ba ëllëg su ngeen yaabaan beneen sabar yi ñëw yow ñi ki jigéen ñu jëbbal da am ndam bu réy boo xam ni foo dem lu respecté la léegi sax dootoo dégg loolu jël na jawaram xamuñu fu dem loolu moo fi am. ayca merci beaucoup mi nga bu ko defee dañuy jaajëfal bu baax a baax waa régie jaajëfal euh, Babacar mi àndoon ak ñun ci micro trottoir bi jaajëfal bu baax ñi nga xam ne nangu nañu àddu ci suñu micro. Euh, gis nga laabaan bu njëkk mhm. li ko leen mooy dafa bokk ci ñun bokk ci suñu cosaan mhm. léegi nag inconvénient am jabar te fekkoo ca lan ca war a fekk mhm. moom la ñu fas yéene waxtaane ak fekk ca la ca war a fekk aussi lan la war a mën a def ci jigéen bu njëkk li ma doon wax euh, yar ak jomb ñoo àndoon maanaam jomb nag li koy indi mooy nit ko am jom bu ñu mosoon takk soxna dem ba jëkkëram annoncé ne daf ko war a jël dafay dem wax ko yaayam ne bés sàngam dama bëgg a jël sama soxna yaay ji aussi day topp yoon wi dem ba ci bàjjanam ne ko diw de dafa bëgg jël soxnaam bés sàngam léegi nag bu boobaa li ci war yëpp bàjjan bi moo koy def jour J bàjjan bi moo lay jàpp waajal la xottil la maanaam la nga war a làmboo yëpp mu doon ñetti perkaal benn bi moom ngay woddoo benn bi moom ngay lal benn bi moom ngay sàngoo bu ko defee sa bàjjan dina jàpp ci sa loxo sang la ba nga set njàmpeeg saabu door laa sang set ba pare jàppal la comme kuy julli door laa andi nag jàpp ci sa loxo bi ci sa jëkkër mu jël sa loxo teg ci sa loxo jëkkër ba pare na xool la ci biiri bët ne la mbaa fooyoo sa bopp nga ne ko déedéet bàjjan mu ne la mbaa li ñuy xaar ci yow mi ngi ci yow nga ne ko déedéet bàjjan mu ne la ndax yaa ngi sóor say noonu yaay nga ne ko waaw bàjjan ndax yaa ngi sóor say soppe yaay xam nga dañuy wax ne gàccee Euh, bu la fekkee ci buntu ñaari euh, néegu ñaari bunt benn bunt bi say noonu fa taxaw benn bunt bi say soppee fa taxaw dañuy wax ne ci ban bunt gawar a jaar ñi xelu ne bu la fekkee ci biir néeg boo xam ne ñaari bunt la jaaral ci bi nga xam ne say noonu fa taxaw ñu ne lu tax ñu ne luñ la waxal ëllëg dañ naan bañ koo tax léegi nag moo tax nit ku nekk war nga sóor say soppe bu gàccee ñëwee war nga sóor tamit euh, déception bi nga xam ne war nga ko mën a teg say noonu war nga ko mën a teg eh, ñi nga xam ne ñooy say soppe laabaan bu njëkk eh, bu ñu la joxee sa borom kër ba pare dafa am taxawaay boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk caada boobu muy suñu ko géwél yi eh, dañu ci doon taxaw taxawaay bu am solo bu njëkk dañuy ñëw biral ne kii kat la doon séentu ci moom am na waaye nag am na sew-sew ci biir mag ñi dañu lay wax ne bépp laabaankat da doon moytoo laabaan koo xam ne fekkuñ ci moom ak ndaw li inconvénient bi ci mën a am mooy booy laabaan ki nga xam ne fekkoo ci moom ak ndaw boo ci coroxaanee dootul wér ba tax na pour ñu muslu ci loolu bu ñuy dem euh, par mesure de prudence dañu doon jël këriñ euh, sex ko bu ko defee lépp loo xam ne inconvénient la ak lu ci war a mën a am day topp borom mm-hmm. léegi nag li gën a may xale jigéen yi fit la nouvelle génération bi ñu constaté dañu gis ne li ko dale ci 16 ans ba 20 ans ñi ci ëpp léegi virginité boobu amatul ci ñoom ñu ne la pourquoi waaw parce que ku ñëw ne dañ laa dee mhm. léegi li nga xam ne euh, bees bees la yu ñuy gis mhm. mooy maanaam ndaw artificiel ndaw bu ñu defaraat ndaw artificiel fu mu am waaw boo demee euh, dañ koy jaar par la voie de intervention chirurgicale mhm. dañ koy defaraat dañ koy defaraat mais nag defar defar defar defar du nuroo bi nga xam ne moo di original dëgg la ayca bu ko defee dañu koy gën a yaatal Sanjoogu Ndaañ la jërëjëf ñu naan lu général jeex ba mu def sama bos. jërëjëf xalil euh, su mm-hmm. euh, sujet indi nga ko. Uh-huh. te jàpp naa ni ni nga ci waxee. Uh-huh. maîtriser nga sa domaine. Uh-huh. parce ni nga tegee mbir mi. leer na. waaye gis nga laabaan. Mm-hmm. baaxut. laabaan. waa da nga may déglu ka waaw mais da mm-hmm, mm-hmm. dafa méngoowut sax ak diine mm-hmm. diine dafa laal sutura nga suturaal nit dafa nekk ci diine ñu tëddee nga tëddee sa jabar maanaam ñu jox la ko nga den nga tëddee sa jabar ñu xëy dëkk bi yëpp yëpp ni diw diw tëdd nañ méngoowul ak diine rafetu aada la joo xam ni. aada ju bon la. waaw dafa soxla keneen di yëg. ne diw ñii kat moom ak jëkkëram séq nañ lii biig. loolu rafetul. ñëwal rafetul non may ma. léegi nag. leneen la xam nga tey yaay gis fi gis nga yu ci bari yu ñuy wax naan ñu dem hôtel. Mhm. ñaar ña xamante nañ de. yu ci bari. ña maanaam ñaar ma ne ñaar ña xamante ne bu baax. yaa ngi leen. ah. ah, ah. non c'est que mu ne nga fa. am na ñuy dem hôtel ñoo xam ni. ba ñuy dem hôtel dara xewut. Mhm. waaye am na ñeneen ñuy dem hôtel ñoo xam ni ñoom ñaar ñëpp. xam nañ hôtel bu baax. yàgg nañoo dem yàgg nañoo hôtelu. ba bu ñuy ñëw. Mhm. préparer seen xam nga bi expliqué na sànq ne. Euh, bu ñu ñëwee daal di wane ñu wane ni preuve nga ci. xam preuve preuve boobu moom c'est facile am de. ah lan la ñuy laaj. ndaw lu ñuy laaj. ndaw ndaw loolu la ñuy laaj. waaw loolu kañ gars yi dinañ ko indiwaat. dinañ ko indiwaat naka ci naka. Ah, bu jëkkër ji ne sama jabar wàcc na. Ah. ñu indi seen kii loolu. lan kii loolu mooy la. takk takk lan la mu takk. waaw kii ba mu takk. la mu takk mais est-ce que xam nga saa. yaa ngi dégg dama lay dama lay mais su kaa dimbali ñu. dama lay rejoindre saa dama lay rejoindre ci benn côté. Hmm. l'islam loolu nga wax noonu. Mhm. dafa contre maanaam laabaan. dafa jaaduwut. waaw d'accord mais nag mais nag boo gisee ñu ko doon def. waaw gis nga nit bu tëddoon. waaw aada la déglu ma dafa am yoo xam ne mais danga may bàyyi ma daaneel. waaw nit bu tëddoon waaw dañuy fexe ba ay xaritam wala boog maasam gi nekk ci koñ bi yëg ne kii kat la mu warloo woon ak yaayam. na ko yaayam yaree. laajtoo naag loolu. Mm-hmm. léegi nag pour leçon la pour ñi nga xam ne ñoo ciy ginnaaw parce que nee naa la bu njëkk dañ doon jongante ci jom dañ nañ ko ba ñuy laabaan dañ lay woyal naan la. Mm-hmm. guddee taxul nga war mbaam alburaax nga war. Mm-hmm. boo waroon mbaam mbaam ma day soox. loolu message la boo dañu koy wax mu dugg ci noppi ñi nga xam ne dañoo seetaan si. pour ëllëg ñu mën a jaar foofu. li nga effectivement am na ñoo xam ne euh, maanaam da ngay da ngay ànd xale bu jigéen mu nekk xale bu ndaw. la ngeen di seq yéen a ngi koy seq durant euh, la ngeen di génn léegi nag bésu takk ñëw sa yaay ne la yow ku góor ki rikk bu ma fi indil koo xam ne euh, yàgg naa jëflante. Mm-hmm. xale bu ndaw laa bëgg ngir nga siggil ma parce que loolu moo fekk sa kër baay. Mm-hmm. muy indi artificiel bi ma la wax. soit ñeen ñaar ci seen complicité. mën ngeen a dugg ci leneen. day fekk day fekk yow nga jiitu ci moom. day fekk yow nga jiitu ci moom mais am na ñoo xam ne aussi seen mbëggeel ci yow. Mhm. mën naa tax même bu ñu jiituwul ci yow. suturaal la laa suturaal mhm. accepté la loolu. Mhm. bari na ñoo xam ne boo demee ci ñi nga xam ne dañuy defar ay ndaw euh, artificiel dañu lay wax ne cas ñu ci am yu ci bari jëkkëru ndaw si mooy ànd ak ndaw si ba ci ñun ne la dama bëgg nga defaral ko ndaw artificiel ñu encaissé la defaral la nga dem. yow ak moom ak yàlla ak soxna si yéenay xam mm-hmm. moo xam nag ndax yow yaa fa bind la fa nekkoon wala boog nit a ko bind yow sa bëgg-bëgg wala boog sa sutura poussé la pour nga protéger ko ba nga xam ne tey la ñu doon séentu ci moom dinañu ko fekk ci moom mm-hmm. parce que nag dañuy wax ni ñaari nit bu ñu nekk suturaalante def ciy baax Khalil waaw c'est que dama la bëgg a wax leen waaw bi ñuy tënk pour nga fekk ci sa soxna mu mm-hmm. doon ndaw xam nga loolu ki koy def. Hmm. dafa bëgg mu leer ko ne soxnaam si. mu yàquwut moo ci jiitu hmm. loolu mooy li nga xam ni moom mooy première hypothèse. Hmm. mais am na soxna yoo xamante ni bu xasee ba ne teel. téewatuñ seen bopp mën nañ koo tée ci jamono ji ñuy jànku mais bu ñu paree ñoo raw autoroute à péage ah, autoroute <laughs> am na ñoo xam ne ci tey ñàkk nañ ko ci erreur mhm. waaw waaye doon ay gor bu la doon ay garmi ëllëg si biir mhm. nga takk leen hmm. xam nga lépp mi ngi dependre ci ki nga nekkal ah. am na ñoo xam ne ba ñuy joxaan nit ki nekkal hmm. xam nañ ni kii lii nekkul ci moom hmm. mais xam nañ ni jikk jikko baax mi ci moom. billaahi donc nag kiy takk. Mm-hmm. balaa ngay takk nit. Mm-hmm. defe naa ne boo balaa ngay takk nit la nga war a njëkk xool ci moom. Mm-hmm. du ndax am na ndaw wala waaye da nga war a xool ndax kii ji nit ku baax la wala du nit ku baax. yaa ngi dégg. loolee nag nga xam ne moom lañ teg. pour rek mbumbaay xumbaay public bi yëpp. loolu rek la mais loolu furu wut ni ndaw suy kat am ko tey. bu subaa du ko joxe feneen. firiwu ko parce que am na ñoo xam ne am nañ ko te après dañ koy wasaare mhm. am na ñoo xam ne amuñu ko woon dañu leen ñu ngi continuer di respecter seen bopp. Mm-hmm. boo xam nañ ko ñàkkee. Mm-hmm. mën nañ ko ñàkkee nu ne. Mm-hmm. est-ce que xam nga am na ñoo xam ne dañ yàlla moo leen di bindee noonu. waaw voilà loolu yëpp am na. waaw li nga wax noonu waaw. am ñoo xam ne dañ leen di siif. waaw am ñoo xam ne comme li ñuy wax par exemple mbokk mu jege. waaw nijaay la. wala rakku baay la wala dëkkandoo bu yàgg bëgguñu mu ñaaw ñu ci dara yooyu yëpp day am tëddee na ko am na mais nag li may conseiller ñooñu pour a am ndaw li muy indi ci biir néegu sëy mooy confiance mhm. par exemple confiance ak respect bi nga xam ne sa jëkkër war na ko mën a am ci yow loolu la ci mag ñi doon séentu ñi nga xam ne loolu arrivé na leen ñu doon ay xale seeni parents nañu dem ci docteur mu defal leen certificat médical parce que pour ëllëg a tax mhm. bu sa jëkkër ñëw danga ko koy présenté ca ngoro ga say yaay ay mag nañu wax ak moom mhm. ne ko kiikat kat yaa ngi koy ngoro pour jël ko soxna waaye lii ak lii da caa am daa am lu ñëw ñuul ci sow mi bu ko neexee mu jël bu dee loolu daf koy déranger mu bañ a jël. Mhm. mais nag li bon mooy nëbb sa bopp. ba ñu xaar ci loolu loolu. Mhm. fekk amu fa. mais bu fekkee manque de confiance lay dafa da nga daanu. bu fekkee da nga daanu comme ni ko saa waxee. Mhm. comme daal nga daanu. mu nga nekk xale nga daanu moom. léegi au fur et à ngay màgg. yow nga téye sa bopp. bu sa jëkkër nekk yow. bu couché yow dina xam ne yow mi yàqu. mais la fa nekkoon ba tey nañ ko fa. bien sûr. comme daa waa nga fa xasalu rek nga fa. comme nga fakkastalu rek nga daanu wala nga jógee ci dara nga dal ci dara hmm. ama jigéen day detteelu te bu detteeloo am na loo xam ne mën na génn ci moom hmm. moom depuis que nga nekk xale hmm. mën na màggaale ak moom mais bu xam ne kii xale la mais am na loo xam dafa dañoon ci moom yàgg na ñun ñun ñi nga xam ñun ñun ñun géwél yi comme exemple daal boo ñëwee nga ñun bu la sa jëkkër jëlee am na loo xam ne dañ koy tagg muy ñaaja takk takk la ñaaja boo xam yaa koy takk ak peme peme la mais mm-hmm. lépp peme lay doon mm-hmm. danga koy takk ci sa baat mm-hmm. après ñu takkal la ko ci sa kii bu bu la takkal sa maam day toog sa maam mooy yore bale taxaw di da nga naan ma am ma jaar fi mu jaar mais ndaw sa jëkkër bu la fekkee ci ndaw da lay respecté day am loo xam ne dala ko teg te ni ni ni jigéen di nekkee ndaw am na góor yoo xam ne nekk na ndaw xamuñu jigéen waaw loolu la ñu waxoon man laaj. loolu laajal ah. ah, mhm. mhm. jigéen dafa boppam. Mhm. mais il faut aussi ñi takk. nga xam ne jigéen. guddi la. ndabal guddi nag da yor sa lu ne nga mooy sa wërsëg. man mbëggeel moo war a jiitu ci diggante bu ne. pour man góor bu bëggee jigéen. ñu ne ko mu ne ñu ne ci àddina ak lu mën a fekk ci moom. mais comme li saa wax benn moment dañuy teg jigéen ñi loo xam ne pour man bii mhm. bis seen kaw est-ce que nekkul sax jigéen ñi nangootul sëy yu bari sax loolu la mhm. te pourtant ñëpp xam nañ li xew. maanaam weer boobu ñu leen di weer ak toroxal ak boo ko amul maanaam teg leen benn pression boo xam ne réunir seen bopp tellement que. Ah, danaan mel bu ma duggee sëy bu ma tëddee samay bàjjen wala lii lan la wax. Hmm. da ngay gis sax benn moment ñu leen di exposé ci loo xam ne rafetul ci bët. Hmm. Hmm. ko. naan ñoo ah moom de li mel ni ñu tëgg c'est-à-dire que. xam ne tey jii day teg pression que xam nga ma bàyyi la jom jom loolu loolu mu wax noonu solo au contraire dafa war a mën a puus nit ki ci jom. mais tollatul foofu. d'accord bu na yàqu. xalil parce que nag boo xoolee jom. lañ doon roof ci yow ba nga xam ne danga naan bés boobu naa koy sóob fu ma mën di toll. dëgg la te li nga wax aussi dafa am. fu jigéen ñu yàqu lay ci loolu rek góor a ko ca gunge. xalil kon donc góor ñi aussi nañu bàyyi xel ni. na na nga def ba tëj bopp xale bu jigéen bi naan yuuram. amal ngor gu toll ni gunge ko ci loolu ba ci ba ci ba ci dugg yàq ba parce que aussi dafa jigéen loolu ba pare wëlbatiku na ko fa yukk mm-hmm. dem seeti keneen mm-hmm. loolu dafay doon loo xam ne neexul ci xol indi na loraange ëllëg mm-hmm. nag jëkkër xalil condoña euh, yoo xam ne yow yaa ko ci def xalil euh, Omar dafa wax lu am solo muy pression bi ñu teg jigéen ñi jigéen moom day mel ni rek góor ñi daal ñoom ñoo tëral règlement sëy ñoo ko tëral que ni bu ñuy sëyal nit dafa war a am ndaw buñ jógee ci mu am ndaw ñu ne ko jural. waaw. mais c'est que. Mm-hmm. dafa am yoo xam ne jigéen ñi dañu sonn. dëgg la non sonn parce que dañu leen a teg loo xam ni mm-hmm. fan lañ ko teg. fan lañ ko wékk. Ah, ah, mm-hmm, xam nga. mais di nga am lu góor moom amul dara lu ñu si ne moom moom kenn du ko waxal dara moom moom tilim na moom naes. donc ki mu takk. kookoo ko bon ki mais ku góor moom ku baax la. dëgg moo fekk ma ci moom ndaw vraiment kii nit ku bon la. naa wuti keneen mën a wuti keneen. alors que ñaata ndaw nga jaar. Ah, fekk. wax loolu la mu teg la mu kii kenn mu laax mu mu toll. nga ñàkk am doom. ñu ñëw ëllëg. Mhm. ndaw si dam ne ay obstacle la ñuy tegal jigéen ba ay ay yu ñu war a tëb. dëpp ah. de bii boo jógee ci bii ñu tëb bi ah. tëb ay mala boo taxawoo gi sax tam ñu ne non kii dafa jigéen ne. Eh. dafa jigéen ah. non problème bi ñuy teg jigéen. bu laay dëgg la. c'est ay problème la. yoo xam ni vraiment. donc il faut ah, góor yi tamit delloo si waat seen xel. delloo si seen xel waaw xam nga li ñuy wax weñ gaa nga bañ a ca mbañ nga xam nga. Mm. xam nga loolu li ko indi. Mm. damay nekk xale euh, man ak kii ñu bokk benn koñ nekk ay xale. di foowandoo yaay papa maa yaay suñuy parents dem nañu liggéeyi. ñu bett ñu man ak moom yàgg naa foo papa yaay. ñu bett ñu man ak moom ñuy def. <laughs> nañ xool ñamul nawal dool ñu jàpp ko moom dóor ba mu ne waale. man sama yaakaar dañ may foog naan na yow ni nga dande boole koog ay rey damay foog na loolu mooy lancé bu baax bi ñaata xale yu góor ñoo fi la fi gis te yoo xamoon ne amaguñ sax vingt cinq ans bu ñu nekk see nekkee seen jabar nekkee seen jabar chaque guddi ñu mat si nii wala ñu jël defet tere terrain la nouvelle génération mm-hmm. bari na ci ñu yor jabar guddi gu jot ñu mat si niil wala ñu jël defet loolu ko ñoom Cheikh Baara xam nañ ko ñoom ñi nga xamante ni bii ñoom la ñu yoroon ci seen ndaay fële ñu ñëw pour faju jeex xam nañ ko xam nañ ko jigéen bu njëkk boo ko ne sa jëkkër da lay jël pendant une semaine day stressé wu day tiit ba nga sax day feebar ku nekk da lay takk da ngay feebar da ngay jeex takk ah, yaa santé ci moom la jël pression boo xam ne boo ko xoolee rek da ngay naan kii dafa feebar wala dafa lekk wala dafa naan li ko waral mooy li ko waral mooy man lii bu ñu ko fekkul ci man nan laay gisee samay parents kaay ma wax la fan mooy erreur góor ñi. waaw leen war a jàppee. waaw gis jigéen ñëpp xam ko. suka su gis nga léegi am na ci ndaw yu bari yoo xam ni. waaw coppitaale lañ koy dindee. ci naka ah mais dañuy dem waaja du dam gum ko percé mën na fekk xam nga loolu mooy fekk xam nga yaa ngi dégg mais loolu xale bu góor bu toll ni mu war a toll du soog a jël soxna ñëw ndaw su ñu bañ naan mu jigéen mu tëdd bala di wëndeelu mais dafa foo nañ ko xam ni xale bu góor bii. moom it dafa fo. waaye dañ naan noo moom de kii kii si dox la yemal dañ koy delloowaat. waaw ne moom de xam xam nga góor te day ñëw te buñ ko joxoon jigéen. góor bu njëkk bu jëloon jabaram. Mhm. maanaam comme li ñuy waxtaan bu xëyee ba un. Hmm? ku góor ki danaan laaj. ku jigéen ki dañ koy ruwal la ka dàmp mun a laaj. waaye léegi da gis ku jël jabaram. fekk na ca moom la mu fekk ci moom waaye bala mu cay yegg lu ne def na ko daaj na ko. Ah, ah. parce que xale léegi nag xale góor yi léegi ñoo yamatul. Mm-hmm. li tax bu ñu gis fetal la. defuñu mm-hmm. bal ne muy moo tax ma ne la bari na fi xale vingt cinq ans. amatul bal bu ñu tëddee seen jabar guddi dañuy nii. Ah. ndam du dem ndam du dikk. ndam du dikk jigéen ñi yor ndam nga naan ndam. bu bu buñ ko defoon coupe championnat nga xam. ci fi nekkoon. defe ñu mag ñi lu eh. xale bu jigéen dafa war a téye boppam. Mm-hmm. xale bu jigéen dafa war a. Euh, maanaam denc li nga xam ne moom la ko yàlla bindee. Mm-hmm. bu la góor wax lu tax nga joxe ko. bu la góor dig lu tax nga joxe ko. Mm-hmm. ba mu doon cheveux naturel ba mu doon or parce que la nga yor moo gën junniy kiloy or. Euh, am na ñu ko ba tey. déggoo li ma la wax. seen ndox daan taa ba léegi tap tap tap maa ngi. moo indi boo boo bu la joxee sa dëkk. bu mu xëyee naan la caq ba ana caq ba. ana caq ba sa yaay soloon su mu jox sa sa maam joxoo soloon. su mu jox sa ne moom la ñu soloon tey. parce que di nga xaleel di nga xaleel di nga pour man góor dafa war a nekk psychologue nekk éducateur. parce que bari na ci ñun bu ñuy jël soxna soxna suñu jël ñun ñoo koy mag. maanaam surtout boo jël sa aaw day fekk mu nekk xale mhm. kon kooku dañ la ko dénk pour nga mottali yaram mun nga fekk ci moom ay ndëngate sax mhm. yoo xam ne tey jii mhm. yow bi nga koy jël à vingt ans moom yaram am na lu ci des yow ak tuñ fa fekk yow di sa waajur wu jigéen wala wu góor ñoom nga far a dugg seen famille ngeen mottali yaram mais bu à chaque fois bu leen jéem a mettre en exergue ay ay défaut mais xale bi de bu ne nii yow bu ñu la koy jox ak ak bu ñu la ko jox dafa laaj ñu yaraat ko. Mhm. kon yow bu dee ku góor ku baax nga ak yow yu bari koy jëm mën ngeen ci mucc yu bari mën ngeen ci génne li woon démb ngeen fàtte ko. Mhm. xool li ci kanam. Mhm. maanaam mais man xam li may bañ góor bu am sutura. maanaam maanaam jigéen aussi ah c'est valable pour jigéen. pour man say sutura rek moo ko la ki ngay dugg ci moom peut-être xamoo ko woon ki ngay dugg yàlla boole na leen mm-hmm. ci aras na leen boole boo leen duggoon loo leen ca fekk mm-hmm. bu laajee faju dem leen faju bi bu laajee mu leen te dee leen ko def pour man surtout les choses bu ci amee mm-hmm. détails yi bëri duñ ci duggati nit ku amul defu amul mais am na ci góor ñoo xam ne mais yaay ki ngeen ma may de sama bàjjan waa kii moom ah góorawul mais est-ce que xam nga bari na góor ñoo xam ne tey bu ñu fekkul bu ñu fekkul ci yow bu ñu fekkul loolu ci mm. hésité wuñ fu ngeen jotee mu xase la ko. ay jàmbar lañu. léegi nag nga toog toog ci sa biir néegu sëy bi souffrir loolu. lii su kaa doon wax keroog. maanaam a rey jigéen ñi de. violation verbale. Mm-hmm. maanaam nga wax ni kàddu boo xam ne ba ba muy mm-hmm. dee dootu ko fàtte. dëgg la ko que ba mu la ko waxee ci début ba. Mm-hmm. nee nga ko non grawul man lijjanti wu ma loolu essentiel est na yem sama diggante ak yow. yow mi ko waxoon loolu ba xelam dal. yaakaar garab nag bu la sutur mun a la may ker ginnaaw yàlla yow yaa ko war a mun a suturaal parce que bu ñuy wax ñaar ñi ay way dencante la ni lan la ñuy dencalante seen i ayib nga nëbbal ma samay ayib mu nëbbal la say ayib ba du génn ci biti waaye nag neexul ci xolu jigéen par accident loolu mën na am parce que ku dul juum amul bu doon ku fi bon ñu bala kenn du baax léegi nag moom loolu arrivé na ko étant ndaw peut yow ñaata bopp jinax nga toj mu xamoo nu ko nu ko def ba toj boppam mm-hmm. yow nga ne ko loolu dinaa la ko supporteel nga dem ba ci biir ndekk ni ñu ñuux ñu ko ci sa xol nga woo ko benn yoon mm-hmm. jotuloo ko wala muy communiquer nga ne ko mën maa ko def sax man mi dugg ci ndax lii laa fekk ci la ma la ma doon séntu ci yow ma ko ci yow mu mm-hmm. suturaal la nangam nangam kon donc jaratul loo xam ne sutura amatu ci jabar daal jabar daal da nga koy tànn mais jëkkër aussi da koy tànn jëkkër dañu koy tànn parce que aussi jëkkër bu ñu koy boo xam ne rek dañ leen di teg hmm? lu a amal doom ba ma amalee man ak sama soxna ñoo seq man ak sama soxna ñoo ko seq lay am am na man la concerné mais bàjjan jóge fële yaay jóge fële ay ca nañu tëgg nit ñi ñëw am na ñoo xam ne seen seen kersa sax moo leen mayul loolu mm-hmm. Mm-hmm. wala ñu dem ba koy bu njëkk dañ lay esprit yooyu dañu xaw a dépassé ñu dem ba koy natt ci mbaam ñu naan nit bu amee ndaw boo xam ne du daal artificiel bu tëddee mbaam day ñaax mooy lay wan ne kii du bu artificiel. Mm-hmm. xalil xalil euh, góor ñu bari nee nañ leen. Mm-hmm. Euh, dañ leen a takk xala fekk pression moo leen jàpp kenn takku leen xala bàjjan ba toog ca buntu ba di déglu <laughs> ah, dara du fonctionné parce que bàjjan ba lay <laughs> calculé. Mm-hmm. te nga li nga xam ni baaxut. ci aada li ñaaw li nañ ko dindi. am na ñoo xam li nga xam ne lu rafet li ñu teg ko. loolu mooy li nga xamante ne moom la lislaam digle mm-hmm. am na yoo xam ne vraiment mm-hmm. euh, rafetul tey sa soxna ba noppi yëfu yembar la mm-hmm. voilà maanaam jigéen yi maanaam nañu nañu nañu nañu gën di maanaam di téye seen bopp. ndaxte tey jii dégg ngeen kàddu yi fi jib yëpp. jigéen jigéen jigéen jigéen te fekk na bépp jigéen bu fi yàqu rek góor a la yàq. moo xam góor bi dafa nekk mbokk bi nga xam ne daf la jege wala ki nga xam ne da ngeen dëkk mu yàq la ci ba nga xamante ni tout tànk nga woo xàmmewoo mm-hmm. woo mm-hmm. may ñaaxaat parents yi nañu gën a la aussi ci seen njawoot yi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi moo xam locataire la moo xam mbokk la mm-hmm. maanaam di ñi nga xam ne ñu ngi uuf xale yi yooyu yëpp day maanaam ndaw daf ciy jógee kon xale jigéen ñi ni ma koy waxee rek ci samay émission euh, boolu boolu beñe yeeg boolu cere yeeg boolu beñe yeeg nañu koy denc nañu koy muur ba gis ki nga xamante ne euh, seen yëf la maanaam ki leen takk ñu lew doom si ñoom ñu daal di koy joxe euh, waaw waaw waaw boolu beñe yeeg maanaam dama naan xale jigéen ñi dama koy wax ci samay émission nañu nañu tëj booy yi bu ñu koy tijji yi bu ñu koy tijji rawatina ñi nga xamante ne ay xale yu ndaw lañu bu dee mag ñi jeexal nañu ba pare saaru faat jeen yi jeexal nañu ba pare mais xale yu ndaw yi gën leen a téye seen i sër ndax góor daf lay respecté mhm. bu fekkee ci yow ndaw boo fa fekkul ndaw bu dee gorewul dëgg du la jox benn cër merci mhm. euh, cër boobu rek la ñu ci soxla mhm. ginnaaw bi nga xamee ne euh, vraiment rafetlu nañu li fi jaar yépp élément yeeg waari jeeg ñu ci plateau bi rek yëpp vraiment experts yi rafetlu nañ ko ndénkaan bi ñuy def rek mooy Papa Coppet Ndiaye am na benn morceau bu muy wax war ngaa takk mhm. morceau ba ca biir yax ba mhm. ma ngay wax ne paa bi moo fiir wala xale yu jigéen yee gaaw a biir. Mhm. hamburger jarul biir. Mhm. kon donc xale yu jigéen yu bari li ñu leen di naxee yu minable yoo xam ne jaru ko. Mhm. ëllëg ngay regretté. te góor am na ci ñoo xam ne amuñu ngor guñ la gunge jusqu'au bout. di leen jaajëfee bu baax a baax di jaajëfee waa Kaolack waa Mbour waa Ngapparu First Lady. yaay Serigne Fallouk Abdou Karim Ndaw Ajaratu Fatou Kébé la présidente de l' association fans club groupe Walfadjri di leen jox dig daje. beneen alarba ak jàmm incha allah ci seen beneen numéro euh, sava euh, ci seen beneen numéro. Euh, takku show ci école des jeunes mariés merci Omar. <laughs> Euh, jërëjëf euh, Khalil Wagne euh, waa Mbour damay wax ni que rafetati na macha allah. Mhm. te nga indiwaat loo xam ne rek day jaar ci xol dem ci xol mu di laabaan donc di ko wax rek comme ni ko Fatou Dieng waxaat naan fa ndox daan taa ba tey boo fa demee fekk fa li nga xam ne rek moom moo di tepp tepp dañuy daal di dem fi nga xam ne moo di régie daal di jël suñu rubrique bu boo nekkoon président lan ngay def ñu dem topp.